salaamaaleykum Sénégal man la Yaxya Diop Yékini ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di sensibiliser rek comme ni ko ñëpp di defee euh, ci feebar bi nga xam ne mooy coronavirus nga xam ne lëmb na àdduna bi yëpp di ñaan ñëpp ñu jëfe consignes ñi nga xam ne moom lañ ñuy jox lii du yëfu kenn suñu yëf la ñun ñëpp parce que baaxul non seulement wéré waaye li mu yàq ci réew mi dafa bari moo tax ñu ngi gën a ñaax ñëpp vraiment ñu jëfee liñ ñuy wax te wax rek ni euh, comme yàlla jox nañu imaan imaan discipline moo koy dëgëral vraiment ñu jafee liñ ñu wax xeex ak moom ndax yàlla teel koo jeexal jërë ngeen jëf